Cet ambitieux projet ne pouvait être tentant que pour les pensionnaires du Colisée, que celui qui en maîtrise l'ingénierie d'évolution à travers un programme bien défini noonu rek la ñuy daal di del la ñuy daal di def dalal ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si biir saa bi te doon amee waxtaan bu ni mel waaye i tamit ñoo ñee tamit daal di ànd ak suñu capitaine comme niñ ko dooree depuis samedi dooree ko ci exposition dooree ko ci vernissage ànd ceeg li nga xamante ne moo nekkoon éveil symphonique en même temps démb ci bu yàggul am na benn documentaire bu ñu jël jagleel ko maam di Hadji Malick si mu dellu ci Maodo l'univers de l'essentiel tey tamit expo bi daal di ñëwaat delluwaat si beneen thème te lépp di wax ci maam di Hadji Malick Sy ñu dellu ci roy ak pire waaye itamit suñu capitaine maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy daal di ñu koy indi bi mu gën a leeree lu ñu mel nag bokk ci enseignement yi nga xamante ne suñu capitaine yàgg na di ñu ko defal gannaaw ba mu tàggatee ay ndaw waaye itamit comme niñ ko miinee woon doon gis colisée de l'éveil ak lam daan làmbool yëpp dañ daan gis ay ndaw rek daan ci nekk waaye bi la yoon dañ cey gisaat leneen lu bees mooy que ne ndaw ñi ak mag ñi ñooy sekk waxtaan bi waaye itamit di éveil ak waa Mourchid ñoom ñooy sekk liggéey bu ni mel ngir yàlla kenn ku nekk mën ci wane sa taxawaay sa détermination ngir mën a fësal mission bi ci wàll bu ñu toll noonee nag lañuy ñuy daal di def rek di ànd ak euh, suñu invité ñu gën koo xam ci euh, oustaz Cheikh sànq rek ñu ngi ko doon présenté ne oustaz la waaye en même temps nekk tamit formateur ñu ngi lay dalal oustaz. Euh, maa bu baax soxna Binta di nuyu plateforme éveil yëpp di nuyu ñi ñu suivre yëpp macha allah. ñu gis la sànq ci biir saal bi nga bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo doon amal boobalee waxtaan ci tënk rek mu gàtt ndaxte doon ngeen wax ci lu jëm ci onde et mhm. ñu bëggoon a xam nan lañ ci mën a déggee liggéey jàngale Mame di Hadji Malick waaw ni ñu ko mën a jàngalee defe naa <coughs> euh, capitaine bi muy tëj ñëw na ci mhm. te mooy euh, diggante onde bi nga xam ne nii ak fi muy jaar ba agsi ci ki nga xam ne nii mooy war a Euh, ci lu am solo ci njàngaleem Seydil Hadji Malick waaye moom ci boppam ndax Seydil Hadji Malick dafa nekk koo xam ne li mu incarné ci wàllu daara ci wàllu xam-xam incarné ko <clears throat> ci ciru yàlla incarné ko ci taxawaay dafa nekk koo xam ne ku marqué Sénégal la te buñ ko dee jàngalee waruñu koo jàngalee ci façon bu superficielle war nañ koo jàngale ci profondeur boo xam ne nii ku ko dégg da nga xam ne lii am na solo yaakaar naa loolu moo tax mu indi choix wu thème entre onde et écho onde bi nag wax na ne mooy koo xam ne nii li muy def lu wér la éco nag moo koo xam ne nii xëy na dafay jéem toppandoo te la muy toppandoo sax xëy na maîtriser wu ko ndax boo fa demee doo fa fekk dara yaakaar naa muy njàngale mu am solo maam Seydi El Hadji Malick nag dafa nekk koo xam ne euh, boo làmbee ci moom da ngay daj da ngay daj ci juddu wax naa ko ci biir conférence bi boo ko lambee ci juddu da nga koy daj muy noblesse généalogique boo ko lambee ci xam-xam koy daj ngir yàlla ak fi mu jaar ci daara gox yëpp wër na ko fànn gu ne peeg na ko lu ne jàng na ko lu ne xam na ko ngir yàlla ak dafa doon waajal boppam pour mat nit ñi sëriñ boo xam ne dana leen yee ndax dafa dikk ci jamono boo xam ne jamono bu lëndam la woon te lënt tubaab yaa ngi fi woon ceddo yaa ngi fi woon aada yaa ngi fi leneen ak leneen a ngi fi mu waroon a nekk lumière bi nga xam ne nii moo waroon a éclairer fii nga xam ne nii moom mooy Sénégal bu ñetteel bi nag mooy sa dimension spirituelle et mystique foofu yàlla defoon ko mu nekk nitu yàlla boo xam ne nii bu peegoon jamono la koo xam ne nii dafa am ndono lu wér wér ci rasulillahi sallallahu alayhi wa am ndono lu wér ci Seydina Cheikh radiallahu anhu ci tarixa bi ko may véritablement mu réussir mission ci biir Sénégal ak feneen fudul Sénégal. loolu tamit di fësal li nga xamante ne moo nekk ñetti mbir yi nga wax léegi dellu ci noblesse maam Seydi Hadji Malick mhm. ci côté spirituel mhm. généalogique waaye itamit ci côté intellectuel. dëgg la noonu la ñuy daal di xuus jàllaat si suñu ñaareelu question. Mhm. dellu ci maam Seydi Hadji Malick nan la ñu mën a définir peeg bi mu peeg xam-xam bu dellu ci wàllu science waaw xam bu dellu ci wàllu science li ko ci yàlla defal néew na kum ko defal ci jamono bi nga xam ne nii moom la doon dund xam nga maam Cheikh Ahmed Tidiane si dafa ne zakiyun wa azka man yura min lidaatihi wafiyun wa asma man sama min rijaalihi daf ne Seydi Hadji Malick képp kum maaseel jamono rek moo la gën a intelligent yàlla daf ko joxoon benn intelligence waaye bi ko yàlla joxee intelligence bi tamit yàlla jox ko yitte parce que sëriñ Cheikh nee na euh, volonté mooy sangu jikko ji volonté wu jàng xam nga am na benn benn bayitam bu muy wax yaatu la lay laaya bit bittu fiiha jël xaara xatta uka euh, ukaabidul kadda xatta surtout xaara di nettali euh, ces ces longues veillées yoo xam ne nii moom la daan def pour wut xam-xam boo gisee Sénégal fii fépp wër na ko jànge na waalo jànge na njaambur jànge na gànjol jànge na un peu partout pour am science boo xam ne nii science infuse la boo xam ne ni buy wax ci dara daf koy maîtriser damay wax ne euh, ñaari ouvrage yi nga xam ne nii moom la mujj def laata muy faatu résumé na résumé na l'érudition de Seydil Hadji Malick muy ifhamul munkiril jaani ak kifayatul raghibin boo demee ci téere bu mel ne kifayatul raghibin bibliographie bi rek xam-xam la ndax téere yi ci Maodo cité ne jàng ne liir na ko téere yooyu pour nga gis ko ba ci suñ vingt deux vingt unième siècle bii gis ko jafe na kon nag dafa nekkoon koo xam ne nii xam-xamam tabaarakallahu weesu na sax doomu aadama di mën a natt fan la xam-xamu Seydil Hadji Malick yam kon nag daf ko sonne Maodo jurisconsulte la Maodo grammairien la Maodo poète la Maodo rhétoricien la Maodo euh, euh, astrologue la Maodo aalimu kulli fanni la donc c'est un univers l'univers de l'essentiel comme ni ngeen ko waxee c'est l'univers de l'essentiel c'est un univers l'univers de l'essentiel mhm. loolu moo ñuy pousse tamit ñu laajaat la Mame Seydi Hadji Malick nan la def ba mën a boole lii di vie sociale ak vie intellectuelle ak vie professionnelle du moins dëgg la vie professionnelle xam nga moom euh, bi mu ñëwee nee naa la daf ne woon moom jàng ak jàngale ak bay dundee moo taxoon mu wax jàjju ba muy jàng julli bay mbay mi moo nekkoon activité professionnelle am boo xam ne nii moom la doon yëngatu pour dunde lu lew parce que lim doon wut ci wàllu yàlla xam na ne bokk na ci li ko koy may mooy dunde lu lew bu ñaareel bi aussi mooy jàng ndax moom foo ko fekk imma mi ngi jàng wala mi ngi jàngale wala mi ngi jaamu yàlla wala mi ngi orienté nit ñi wala wala wala wala ci loolu rek la ma sa dund donc nekkoon na vie quotidienne boo xam ne nii bu diisoon la pratiquement kenn ku dul moom attanoo woon rythme bi nga xam ne nii moom la Seydil Hadji Malick radiallahu anhu doon dundee noonu la ko defee boole kook di orienté nit ñi boole kook di taalif ay téere boole kook di tukki boole kook aussi di di di participer ci vie sociale et politique du Sénégal ku ne xam na ne ku amoon ku amoon taxawaay la ci lépp loo xam ne nii pénc mi mi ngi ko doon soxla waxuma la sax fii ci Sénégal mais au-delà du Sénégal fépp foo xam ne nii de questions yu doon concerner la umma islamique Seydi Hadj Malick daf ci doon intéressé wu ngir yàlla ak euh, dimension bi nga xam ne nii moom la moom la incarné woon. noonu rek la ñuy daal di def jeexal question yi bàyyi la nga mën a dallu tuuti. mu dellu ci maam Seydi Hadj Malick. nan la def ba nekk un réformateur social. réformateur social parce que dafa sa Maodo dafa sonne boppam. bi mu sonnee boppam ba yàlla def ci boppam mu am xam-xam am dégg am wilaya mais ci biir bi muy def formation ci la jàngale Sénégal parce que wax naa la ne dafa wër Sénégal yëpp Maodo xam na gànjol gànjol bi Maodo xam na jolof jolof bi Maodo xam na waalo waalo bi Maodo xam na kajoor kajoor bi ce qui fait que Maodo xam na bawal bawal bi xam na tradition yi nekkoon ci réew mi wër na ko d'ailleurs sax am na ñoo xam ne dañ ne. le plus grand sociologue du Sénégal c'est Seydil Hadji Malick radiallahu anhu ndax ni mu peege société sénégalaise ni mu maîtriser seen i aada ni mu maîtriser seen i mentalité gis nga Seydil sëñ Cheikh doon na wax ne Seydil Hadji Malick daan na wax ne nee na philosophie euh, waa réew mi philosophie falsafatun paafiya la nee na philosophie la boo xam ne dafa tëmb diigul dafa xam tradition nit ñi xam suñuy défo xam li nga xam ne moo ñu gàllankoor moom moo taxoon mu mën a nekk réformateur social bi mu ñëwee fekk na fii ay yu bon bon wax naa ko sànq fekk na fi ñoo xam ne dañuy tam nit naan nangam dañ koy tooñ mu ne moom bu sañoon bokk nekk ki ñuy tooñ bañ a nekk kiy tooñee fekk na fi ay kast mu valoriser caste yooyu pour wan leen ne leen gëneel ci yàlla la nekk mais nekkul ci kast fekk na fi yu bare bare bari yoo xam ne nii lu sonaloon penc mi la ba ci ceddo yi ni nga xam ne noonu lañ sonaloon population bi di leen opprimer di nangu seen alal di dund ci benn benn ay rapine di nangu nit ñi loolu dafa fekkoon dafa nekkoon un protecteur social aussi dafa nekkoon benn refuge ñu baree bari daw nañ làqu si ci moom <coughs> pour mucc ci tubaab bi wala ñu mucc ci ceddo yi kon looloo tax mu nekkoon un réformateur social changé na lu baree bari ci doxalinu nit ñi jàngal na leen orienté na leen génne na leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer Oustaz Cheikh ñu ngi lay nuyu ñu ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la rek nga tàggatoo maa ngi lay nuyu soxna Binta di rafetlu vraiment encore une fois initiative bii nga xam ne nii moom la éveil am moom la euh, MJ am ci ndi ci njiitalu capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy xam Moustapha hafizahullah wa aydu waraa yàlla yàlla sàmm ko yàlla sàmmal suñu kilifa Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha si ndax lii lépp résultat wu liggéeyam la ah lii initiative bi am na solo ndax ku nekk sa génération à chaque génération sa mission mm-hmm. génération bu nekk am na mission mission bi warul tardé génération bu nekk war nañu orienté nañ tollool ci ni nga xam ne nii moom la seen seen exigence su jamono ak li seen jamono tollool ñu jàngal leen xamal leen orienté leen ñu xam ne <coughs> Seydi El Hadji Malick c'est un patrimoine mm-hmm. suñu héritage la héritage intellectuel dañ cee war a jariñu héritage spirituel am dañ cee war a jariñu héritage social am dañ cee war a jariñu ci biir keppaaru suñu kilifa Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha ànd kook suñu capitaine yàlla yàlla mottali liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. amiin incha allah. ku dégg ni muy waxee rek jëmale ko ci wàllu enseignement def ñuy pousser rek ñun tamit ñu daal di xam ne un champ céleste est un champ de bataille on y laisse son confort pour un épanouissement spirituel kon nag oustaz Cheikh dalal sa xel ci li nga wax ne noonu la ñu war a mën a takkoo war a jóg ndax ndaw bu nekk ak mission ba koy xaar ci anam ba muy ci jamono ji mu toll lool noonee rek la ñuy daal di def di ko jaajëfal bu baax a baax moom oustaz Cheikh waaye itamit di jaajëfal mboolem internaute éveil ak mboolem téléspectateurs Mourchid TV la chaîne des valeurs ñu leen di joxaat rendez-vous demain même heure fii ci kër Serigne Mouhamadul Moustapha Sy ngir yàlla ak ñu mën matale programme bi nga xamante ne maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine moo ko daal taxawal ngir yàlla ak mën ñu boole ci yiw ci leer waaye itamit gën ñu jàngalaat comme ni mu amee habitude di ko def ak mbooleem ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci ëtt bi noonu la ñu daal def tamit di remercier kii di ndey Diop ñu gën koo xam ci Ndeye Création ñu ngi koy sant di ko jaajëfal bu baax a baax ak mboolem équipe technique ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo jàpp si liggéey bi ba lépp mën a yemb ñu ngi leen di jox rendez-vous demain à même heure incha allah ak seen projection حب فوق غايات الأماني جمع الخيرات فينا احتفاظا بالمباني قد دعانا فأجاب